wane na tey nii village bu xam boppam la village bu xam fi mu jëm la ñun bi ñuy campagne gis ngeen ni defuñu meeting yu bari waxuñu yu bari parce que ñu ngi woon ci nit ñi programme bi ñu defar c'est un programme participatif dañu dem ci kër yi dem ci atelier dem ci école yi yaakaar googu la waa Grand Yoff wane tey moo tax massivement ñu ni ñu li ñu jokkoo li ñu waxante contrat moral la entre ñun doomi Grand Yoff ñuy ñaan yàlla nañu may doole ak kàttan buñ ko matale parce que nag yaakaar gu rëy la xale yi dañ ci war gis seen bopp mag ñi ji si seen bopp jigéen ñi war ci seen bopp xam nga bi ñuy séddale ceeb ñun nangu nañ ne amuñu doole mais am nañu dignité donc ceeb beeg suukar seeg tàndarma jeeg meew meeg xaalis bi ña ko soxla jël nañ li ma benn maire waxoon biñ ko mu ne biñ biñ ko indilee saaku ceeb dafa ne ko kaay dama samp saaku ceeb donc yaakaar googu yàlla bu mu tas donc ñun amee nañ njukkal Grand bu baax a baax a baax li ci dalal xel nag mooy suñu list ay doomi Grand Yoff rek fi nekk ñi fi nekk ne ñii fi la juddoo ñii fi la ñu màgge góor ak jigéen mag ak ndaw ñu fas yéene nag liggéeyal suñu bopp parce que loolay am solo liggéey lu ñu Grand suñu bopp la parce que ku nekk ci ñun sa papa sa yaay say waa kër yëpp fii lañ dëkk donc loolu mooy problème moo tax tey soo ma laajee réaction sant yàlla gërëm waa Grand gërëm nag bépp kilifa bépp wayjur kilifa diine kilifa aada suñuy parent suñuy famille suñuy mbokk suñuy xarit parce que lii li ci dalal xel mooy vraiment c' est comme un réflexe grégaire c' est à dire waa Grand Yoff de c' est comme on s' est senti agressé quoi humilié parce que liñ ñu def xeeb ñu moo tax ñu def ñu liñ ñu def du moins ñu bëggoon ñu ko def et c' est ce réflexe grégaire là qui qui a permis à Grand Yoff de garder la tête haute.